donc euh, ñetti conteneurs yi ngeen gis euh, waa agent wu subdivision marketing. ñoo ko jàpp ñoo ko saisir euh, maanaam brigade bi ñuy wax brigade portière moom moo jàpp conteneurs yi parce que brigade euh, rôle mom lañu wax la police du manifeste c'est-à-dire bato bu dugg si dañuy yé contrôler ko xool document yi vérifier ko ko xam lan la yëpp lan lay wàcce Dakar lan la yóbbu feneen loolu mooy seen mission essentielle à côté yeneen mission yi euh, bi ñëwee nag pour contrôler bato bi euh, document yi leen capitaine bi joxoon dañ ci def ni que bato bi yebul dara yebul marchandise que dafa dugg si pour jënd lekk pour jënd carburant pour mun a dellu mais ñoom bi ñu ñëwee contrôler dañu gis ni que am na ñetti conteneur ci bato bi bi ñu demee ci kaal yi tamit ñu fekk fa ay pla ay ay plaquettes fer à peu près mille cinq cent tonnes métriques euh, ci capitaine bu leen waxoon ni que yebu ma dara biñ ko posé waat ay question capitaine bi nañu xamul li nekk ci ñetti conteneurs yi que dañ ko ko yebal rek mu indi ko ñu laajte ci yeneen membre équipage yi ñu wax ñu ay wax yi nga xam ne dalul suñu xel bi ñu jëlee numéro conteneur yi def ko ci application pour xool yan conteneur la ñan ñoo moom conteneur yi amul benn benn application bi nga xam ne na conteneur yooyu loolu nag bi mu amee eh, ñu ne nañu wàccee def benn visite bateau bi yëpp wàcce conteneur yi xool exactement li nekk ci biir comme dañu ne munition am na ci euh, munition nekkul marchandise comme n'importe quelle marchandise dañu fexe jël mesure de sécurité yëpp pour contrôler ñetti conteneurs yi bi ñu ko contrôler tamit euh, li ñu njortoon moo am ay balu fetal lañ ci fekk ay balu fetal yu takku bi nga xam ne suñ ko doon xayma tey ci xaalis euh, ëpp na ñetti milliards ci CFA. xam nga soo xoolee douane dafa bëri ay mission ma manière général douane am na mission fiscale maamaam mooy dédouanement yi pour yokk ci gafa état bi xaalis am na mission bi nga xam ne dafay. Euh, dimbalé entreprise yi pour ñu soxeeku amna tamit mission bi nga xamné dañ koy def pour yenen administration mais amna benen mission bu ci topp bi nga xamné moy mission bi nga xamné actuellement dafa am importance muy mission wu sécurité parce que so xolé actuellement mission bobu de plus en plus da fay laaj administration douane xarañ taxaw gën a vigilant parce que so xolé suñu zone bi ak dëkk ñu wër fépp fo gis ñu ngi wax waxu terrorisme ñu ngi wax waxu jihadisme ñu ngi wax waxu arme yuy dugg arme yuy génn te loolu yëpp day atteindre sécurité état yi day atteindre sécurité territoire même soo xoolee CEDEAO dafa jël ay mesures ci naka la arme di demee naka la arme di duggee même Sénégal am na loi bi nga xam ne euh, moom mooy le régime général des armes te soo xoolee bato bi bu muy ñëw loi yooyu yëpp respecté wu ci dara donc moo tax aujourd'hui ku nekk da nga war a def sa pàcc pour lu jëm ci géej gi pàcc boobu subdivision maritime lañ ko dénk. ma ci profito euh, ci turu directeur général pour euh, féliciter ak remercier les partenaires muy port muy gendarmerie muy les sapeurs pompiers muy DPIOT parce que ci opération bi vraiment jàppale nañu jàppale nañu ci fànn yu bëri jàppale nañu ci manutention bi. jàppale nañu ci sécurisation bi